jëlee ku def Ila Touba financement Chine la Chine a koy fay Exim Banque Chine donc moom dañ koy fay régulièrement muy fay nitam yeggali liggéey bi mais yow bu fekkee ne bu ñu la yorelee doo fay noo yeggale benn su bor bi baree amoo xaalis banque bi poñe la nooy jënde matériel ba mel ni ñoon loolu laa lay laaj yow. delloo naa la loolu du sous-traitance bi moo leen sonal. non du sous am na ci yéen ñoo xamante ni dañuy soumissionné ci marché yi. Mm-hmm. gagné marché bi. xaala wala kasiran ci expertise duñ ko am ci marché boobu dem jël mbiri dénk ko keneen mu liggéey ko ñu jël li ñu wax amako si néew damm seen poos est-ce que loolu tam bokkul ci li waral problème li demee nii xam nga loolu nga ko waxee nii c'est trop facile mais profession boo gis am na ay brebis galeuses fii dañuy jaawale lu bari dañuy jaawale entrepreneur ak maçon ay chef de chantier hmm. loolu yëpp dañ koy jaawale un entrepreneur bu jël marché c'est quelqu'un de responsable dafa am ay luñ ko ay charte yuñ tëral ci marché bi daf ko remplir balaa muy gagné bu ko gañee yi dafa am yeneen yu ñu ko tëralal yu mu war a remplir un entrepreneur na peut pas faire sax day joxe ay caution de garantie day joxe assurance day def loolu entrepreneur boobu problème rek mu ngi am bu ñu ko fayulee ba amatul lu mu fay ouvrier mu taxaw loolu moo am beneen bi am am na am na ci biir ñoo xam ne ay débrouillard yuy jël liggéey di def na mu war comme ni mu amee seen profession journaliste yi ñoo xam ne duñ dañuy mbubboo tur di def leneen loolu du ma ko weddi mais ñooñu duñu entrepreneur duñu entrepreneur nañuy lijjantee ba am ak la ñuy def loolu ñoom ñoo ko am ak ña leen ko jox parce que euh, état bi bu joxee liggéey day am ay main d'œuvre yuy contrôler ñoo xam ne dañuy ñëw di contrôler li ñu def lu ñu liggéey ñu valider ko. donc loolu mais, mais mais monsieur est-ce que l'État du Sénégal est regardant par rapport ak liggéey yi nga xamante ni moom la ñuy joxe je prends l'exemple de l'université du futur africain.